voilà chers de Sénégo et de leader 221 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax donc ñu ngi fii ak suñu <laughs> grand Kéba donc moom nag à part woy bi muy def xam naa boo woyul woon humoriste lay doon. Ah waaw parce que fu mu nekk nag kenn du dañuy ree rek Kéba ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa ngi lay fay. baa mi ngi ko ko ni kii mooy Zeyna Bamba Ndiaye borom leader. kan béy di. ñu ñëw tey ci li nga xam ne mooy les cent ans les plus dynamiques de l'Afrique gala des cent entreprises les plus dynamiques de l'Afrique waaw tey à chaque fois gis nañ fi monsieur tey ñëw tey bay bu seen nga xam ne waaw yow noo xamee loolu tout d'abord c'est un c'est un honneur di di ci première participation bi nga xam ne tey euh, gala bu euh, macha allah du lu ndaw yàlla dogal xamal les cent entreprises les plus dynamiques de l'Afrique du ay caaxaan avec monsieur Barry et toute toute son équipe effectivement euh, ça fait plaisir c'est un honneur vraiment aussi euh, ci li ma ñu ma choisir ba jël moom fu ma dëggal leen te sonn nañ ci loolu nag wax dëgg yàlla di remercier bu baax encore une fois monsieur Barry ak toute son équipe et madame Dieng c'est un honneur encore une fois parce que le grand Omar Pène notre doyen effectivement bi muy euh, xaw moon ne un jour bés dina ñëw ba moom monsieur joué ma joué wala ma joué mu joué donc parce que man bokk moon ci loolu ci ci ñuy way donc mais suñu borom mooy desin bi moom mooy jaam moom moom mooy euh, euh, mooy dogal ci ñu ay ñun ñu ay jaamam rek donc euh, loolu ak cant la di ci kontaan lool di gis moom pen mu joué après mu joué wala mu joué ma joué dafa neex lool. mu def première partie yow nga jeexal nga tëj. voilà Keba ñu gis ni danga demoon Europe def fa benn tournée européenne mais bi ngay bi ngay da ñëw gars yi doyeelaguñu ñu ñu bëri di kaas donc am ñoo xam ne ne sax ñu ngi doon ñu ngi xëccoo li nga xam ne ne moom mooy yeneen date dégg naa yaa ngi waajalaat beneen tournée donc ba nga demee sa premier tour mën nga ñu wax qu'est-ce que la fa demee. ku la ko wax yow. nekk foofu noonu. Ah ah bon waaw mais c'était bien donc euh, bu ñu bi ñu fa jógee yàggul yàggul mais euh, effectivement euh, demande bi ma alhamdulilah on touche du bas sant yàlla bu baax di ñaan yàlla mu xeeb tey yi demande bi matal guñ ko te xam naa ne duñ ko gaaw a matal mais yàlla yàlla dogal rek ba mu sottiwaat bañ bañ mën demaat man nag ñi ñi ma ràndal ñëpp nag surtout surtout nag mes ñu gis ni bi ngay dem sax. àndoo àndoo ak say musicien te à chaque fois da nga doon da nga bëgg di ànd say musicien lan moo tax gisuñu say musicien ñu gis yeneen musicien ba ci même kii di tëggal Wally Seck moom moo la doon tëggal gisuñu sa sa musicien waaw ñàkk pexe la dama dama dama ñàkk pexe jërëjëf yaa ma posé bi question dama jax sénégalais ak samay musiciens euh, alhamdulilah samay musiciens ils ont tout compris ñi nga xam ne dañu faral man aussi ils ont compris loolu c'est juste benn expérience bu ñu doon defi la et que di jéem ut bunt pour même musicien incha allah defal ma ci ñaan rek. mais man xam nga ne bépp leader chanteur buy tukki ñi nga xam ne ñoom nga ñoom nga xam ñu xam la nga nekk ñoom yegg ak ñoom ñuy seen musicien bopp boo seen fooy dem di looy def ci mbir musique yaa ngi ñu yàlla moo dogalagul nañ eh, nañ ma ñaanal yokku ñaan gi ñu gis euh, récemment nga defoon aussi li nga xam ne moom mooy grand théâtre. ngeen jàppoon ci biir salle bi. waaw même mu des un balaa muy un mois di jël ticket yëpp. yëpp. loolu. sa sa rek moom mooy euh, dolli sant rek euh, di ñaan yàlla tamit nee la muy xeeb tey dolli. ak ñu ñu ko yéene di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam nag wax dëgg yàlla mais loolu dafa neex ci xol une première nga woote grand théâtre donc yow dama koo fenn booy xool dëgg yàlla xëy na sax comme ni ñi ñenn di wax xam nga des fois nit ñi tam ñu ne mais kii xam na ba moom mais kii fuuy na di xam nga Sénégal dafa xaw métti te nit ki looy yëngu am nga droit am ci sañ-sañ di ci parce que yàlla ko fi nga oser aussi bul ragal nga oser def li am solo moom mooy oser def bi yàlla dogalee rek treize jours avant euh, d'après le producteur Mame Cheikh ma koy nuyu avec mon orchestre mon staff ak staff Jëriñ Ngoné bépp ak ñëpp ñu soloon jàpp ci liggéey bi rek donc treize jours avant ñu gis ne lii ñi amagul te bëgg a ñëw ñoo ko ëpp foofu loola waral ñu génn ko ci biti xam nga loolu nag dafa neex ci xol hmm? te biñ ko génnee aussi gis nañ ne il fallait ñu génn ko hmm. ak sant la ma sant rek sant ci rek sant nag fans yi nag ñoom la de gannaaw yàlla yonent bi am liggéey ne barke Baye fan sëy la sonn nga trop fi nga toog nii kañ ñu ñu gis tamit Youssou Ndour bi mu demee war a def li nga xam ne ne moom mooy compte musical am Birima gis nañ la aussi foofu ci Europe gis nañ aussi des images yoo xam ne ne yéen ñaar yow xanaa da nga demoon foofu waaw xam nga suñu grand Youssou Ndour da am naa chance su ek mu nekk lu ma neex nag loo xam ne lu ma bàyyi xel la parce que am na tuuti expérience bu ma fa jëlee di seetaan Youssou Ndour ci euh, France au Châtelet Châtelet Châtelet boobu noonu vraiment boo fu duggee xam ne woo Youssou Ndour wax dëgg yàlla mooy Youssou Ndour ah boo ñëwoon Châtelet gis Youssou Ndour ni disposition yi ñu teg tubaab yi gars yi saal fees dal ci kaw ba ci suuf ak professionnalisme bi at bi ñu àndal mais c'est normal c'est Youssou Ndour grand boobu moom euh, dama ñaan yàlla mel ni moom mbaama raw ko Youssou Ndour nan nga gisee musique sénégalaise bi actuellement surtout gisoo ak salaam jàmm ak salaam ñuy góorgóor rek redoubler d'effort te liggéey. ah yëngu ni rappeur dañ la dugal ci classe bi wala dégloo kooku. man mii li sama man mii li sama. dañu am na ko duggee studio di la di waaj di la waaj a boole ci classe bi. man lu ma ci man rappeur ma de rappeur ban la. mënuma la ko foog affaire yi génn. yow information yi foo yaa ngi déglu rap yaa des fois ma déglu bu baax nga xam nga nag man maîtriser wu ma seen classe yooyu ak lu ko waral comme maîtriser wu ma ko à part que Adama la seetaan daal moom muy expliquer mais maîtriser mais je pense que ne c'est le showbiz comme ni nga ko waxee ñoom bu fekkee ñu ngi gis seen bopp dabal leen. ah ah waaw bu bu ñu daboote rek mais nan daabali. monsieur bi nga yéegee tey sa euh, dafa yàgg nag mais moom man mu nekk ku ni ku baax koo xam ne dafa ma bëgg nag. daf te nëbbu ko di ko wax fu ne donc euh, mu yéene ma aussi hmm, nekk ni ku baax koo xam ne daf ma jël daf ma ci boppam. donc Mamadou Yat Saay moom wéyagu ma ko sax dinaa ko wéy. ah ni ko baax la bàyyi Cheikh ku baax la. dèjà dañuy tëjee jaale si sa doom bu jigéen bi nga xam ne moo génn récemment àdduna dégg doo doo looy wax ci moom ndax dafa nekk nit koo xam ne dafa nekk dans l'ombre. Ah, waaw moom mi woon ci média bi te même bu nekkoon ci média moom mooy doomu Thione Seck ak Diaga donc moon na ci média bi ci lu ko neex. léegi mu jiite télévision rajo tout ça euh, te taxul mu mu bëgg caméra da doon làqatu bari kersa waaw looloo tax bëgg ci woon parce que lu dul di ko ñaanal rek di ko ñaanal parce que elle était effacée et que baax la woon dégg nga témoignage yi donc loolu dafa dalal xel di ko ñaanal yàlla rek ensemble album Keba ba tey musul génnee album malgré mu ngi toj monde bi di toj Sénégal album bi kañ la. waaw léegi xam ma yaa ne musul génne album dafa jotagul dafa jotagul maa ngi jéem maa ngi maa ngi ci aussi Sidi man maa ngi jël sama temps rek maa ngi ci xam naa dama ko tàmm sax mais bi bientôt incha allah da nga bañ a joxe kii maa ngi ci maa ngi ci ak lan merci beaucoup.